voilà xam ne nii euh, xol lay waxee képp koo xam ne nii yow gis nga ni ñu ngi lay poussé pour nga dem jël gaal say kilifa jotal ndànk nga dem wax ko police wala gendarmerie parce que lii mënut a continuer am na ñoo xam ne bëgguñu dem mais dañ leen forcé ñu dem ah parce que situation yi mooy demee noonu ñu naan xoolal doomu diw xoolal doomu diw ba yow ngi doo gis dara lu dem xam nga wax di nga yegg lan moo fi jaar lii yëpp arrêté ça bay leen lii jël téye leen seen doom téye leen seen doom bu leen nanguti xale yi ci dem di jël ay gaal bu leen leen may fayal paas parce que ku si dem dañ la fa nga fay ku lay fayal say kilifa lay sinon état aussi jël si ay ay yu sûr non seulement ku si sa doom faatu it ñu jël la tëj la comme ça là on arrête tout na gouvernement bu bees bii les Sonko yi Diomaye la président Diomaye nañ jël décision yu yu yu brutal ci lii parce que li dafa war a dagg képp koo xam ne nii say waa kër dem nañu non seulement buñ si faatoo ak buñ si faatuwul dañ lay jël tëj la on arrête ces conneries-là. Moi, je pense que c'est des conneries. C'est du suicide, des haroula. Vraiment, arrêtons ça. Arrêtons ça. On comprend. Maintenant, un je va, ça, ça vie pour des. pour pour pour des. pour des. Attends, faut des... ait Nous faut mën na ne tekk Nous waay des... na nous ñu ne dañu ça n'existe pas pays mieux que le Sénégal, ça n'existe pas. Restez sur place. Donc, les L'eau, Bon, je suis désolé, et puis, il va y avoir, il en direct le Nimbour. Mbour le man direct le mardi il fait quelle heure même mardi je vous, dis, je vous dirai tout de suite l'heure. À 11h42, nous un corps. Regardez. Ils ont ramassé plusieurs corps. Presque, il paraît qu'il y a 200 dans la mer. Nous avons une forêt, Ils sont là. Ils sont là. du ay léeb mën nañu foraat léegi benn fii tout de suite foraat fi léegi benn corps bi ko fi jar pour quelle raison lan moo ko fi jar ah yàq àdduna sa famille ku demut ku di ba yàlla jël ko fi tey nan la waa këram nu ñu demee tey du ñu misère ba dee du ko fi jar te yow yaa ngi doon dund di añ di reer di ndékki am say copain di tëdd ah di dem say kër copain ngeen di daje di waxtaan di dem def la neex di dund biir Sénégal bu màggal jotee nga dem màggal bu tuub bu Tiwaawan jotee nga dem fa Tiwaawan bu Kaolack jotee nga dem tey mu ngi nii vous avez vous avez tout bafouillé Vous avez tout bafouillé. Je parle aux morts même. Vous avez, ils ont tout bafouillé. Voilà le corps Regardez-moi ça. Vous pensez que ça, c'est. ça, c'est ça. Darlan, darlan, darlan. Alalo aduna, alalo aduna, alalo aduna. Xoolaat leen waxtaan leen ak xañ ñuy doom yenn kilifa aussi bu leen pousse seen doom yi naan de xoolal doomu diw xoolal doomu diw yéenay pousse seen doom bu ñuy def lu ñu war def arrêtez ça arrêtez ça. ou bien képp koo xam ni? nii ndaw nga nga gis sa waa kër ñu ngi lay pousse pour nga dem à l'immigration nga dem jël gal.

dundu wala jam Europe lan mo si daax toog leen regarde, regarde regardez regardez mo regardez mo ñi ñëpp ay doomu jambour lañ yu amone espoir dem tok len ici rester ici ñem ñu né Europe ñepp bëgg a ñibbisi man ñi di wax ak yeen dama bëgg je vous en prie dama len ñaan si barke sayyidna Muhammad si barke El malik ci si barke Serigne Touba si barke Baye ñass bu len jël ci gal yi ngir yalla ak yonent bi Regardez-moi ça. C'est pas important. L'important c'est de vivre. importance lan mo fi jar li? lan lan mo fi jar dem tay la sa je veux dire ko fi jar am fi mën nga jënd ak jaay fi s'il vous plaît restez parce que li après da ngeen bu day voilà day doon nit koo xam ne nii moo doon peut être taawu yaayam wala benn la doom yaay benn la si yaayam mel noonu bu génne yaay ji nu muy mel famille boobu nu muy mel regarde-moi corps là ñu ñuy génnee. lii en direct la nii mbuur kenn nettalu ma ko lu wóor maa ngi taxaw man la Ousmane Ndiaye Ponce maa ngi nii taxaw kenn nettalu ma ko direct la nii ni ngi nii tey tey tey di mardi di fekkee leer même tey di mardi. Je vous, dis, je vous dirai tout de suite l'heure. À 11h42, nous un corps. Regardez. Ils ont ramassé plusieurs corps. Presque, il paraît qu'il y a 200 dans la mer. Nous Ils une forêt, Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.